Jeez. ami téléspectateur de Dental TV la Tigresse mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane bu baax a baax a ngi ci seen émission bu mag bi ñuy da koy daal di dund ak la nga xamante ne moom moo nekk ca bitim réew tey nag euh, benn chroniqueur laa am muy sama xarit sama frère di Malcom dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ñu daal di wax taxaw seetlu tay bi ci lan la ñuy débattre Malcom nuyu naa la waaw sister la Tigresse maa ngi lay bëggee di la nuyu di nuyu téléspectateur ak mbokk internetu Dental TV TV yi savoir de di émission bi di ok noonu rek laay jaaree di nuyu suñu sponsor leader euh, agence euh, Touba Médinatoul Diouroul immobilier bi nga xamante ne vente de terrain lay def ak terrassement di def location de voiture en même temps aussi tamit di jaay oto ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di ci Kër Massar ci wetu Auchan bi Malcom euh, taxaw seddu tay bi nag coow li nga xamante ne moom moo rëmbe réew mi ci politique la buzz sax laay wax muy remaniement présidentiel bi nga xamante ne son excellence génn na daa di tas nguuram defaraat remaniement fal li nga xamante ne moom moo di 33 ministre am ci 4 ñoo xamante ne tam ñoom aussi tamit daf leen fal. ministre d'État ah. donc naka nga gisee remaniement bi nga xamante ne euh, son excellence monsieur Macky Sall def na ko ci mu mel ni am na ci ñoo xamante ne nag sept personnes yoo xamante ne ay gan lañ ñëw nañ fekk si fii ci kii bi ñuy jël exemple ki nga xamante ne moom mooy ministre de l'intérieur bi di Félix Antoine moom bleu la ci gouvernement bi. Amna ci ñenn ñoo xamantene nak ñak nañ seen poste ku ci melni ne Nguy Ngouille da melni sénégalais yi ñu ko doon ki ak ki nga xamantene mom moom di Mimi Touré remaniement bi nga xamantene Macky Sall def nako nan nga ko gisé wa sister euh, Eva la Tigresse dila la bu ba encore une fois ci question bi parce que defna euh, nañu fan yi ñuy genn moy surtout ma semaine bi président Macky Sall def na ben euh, remaniement ministériel boo xamante ni wax dëgg fa yàlla population population bi askan bi ñu ngi ko si doon xaar ci lu bëree bëree bëre bëri bëri ñu jàpp ni nag saa waaye maintenant Sall Ngaare lam tooro waaw fas na liggéey en tout cas fas yéene na def loo xamante ne lu extraordinaire la pour au moins rafetal kenkanaawam bi pour son dernier mandat parce que lu mu lu ñu mënti wax ñetti at moko ko di sañu jàpp ne nag instant yi dafa nek ci euh, dynamique bo xam te ne bëgg liggéey liggéey bu am solo mais nak lu gëna graw parce que tey jii ñun ñëpp lam mo bett sénégalais yi wala lu jaaxal sénégalais yi remaniement ministériel bo xam te peut-être président Macky Sall tok na presque xawma 4 ou 5 jours pour def ko mu jaaxaluñ ñu bëré parce que lool déjà nekkul yoon Sénégal nek pays bo xam te ne mun nañ toog nañ 5 jours wala 4 jours amuñu amuñu gouvernement mu nekkoon seul ko mon te ne au crayon, mooy mooy dogal moi, dindi loolu déjà problème mais ci kaw lolo, nous ñu jàpp peut-être bon dafa bëgg def sélection bu baax casting bu baax nga xamante ne lii bu ko sénégalais nous ñun parce que sénégalais xam nañ c'est nous dans nous ñun xamante nañ suñu biir xam nañ qui peut faire et qui ne peut pas faire ñun dañoo jàppoon peut-être 4 jours yooyu mu togg wala 5 jours faut nous, daf ñu nar gouvernement boo xamante ne sénégalais boo déggee ni gouvernement nga xam ah Euh, président Macky Sall kii si liggéey la jëm mais par la suite lañ gis ay taf yëngal ay poste politicien parce que sax ñoo ngi naan Euh, remaniement ministériel mais est-ce que ça Macky Sall ce qu'il a fait ça mel ne remaniement boobu kii di opposition bi ñoo ci gën a gis seen bopp. ku ci mhm. mel ne Aïssata Tall delloo na ko poste. ku ci mhm. mel ne Omar Sarr aussi tamit jox na ko poste ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne après bu ñu gënee xuus ci waxtaan bi dinañ ci jàllale seen tur. parce que moom boo xoolee dafa am ñu mu génnee am ñu mu dugal man lii mënu ko jàppee carrément sax benn remaniement ministériel benn réaménagement. Mhm. dafa defaraat rek Nous que combat peut-être en 2019 Nous ñu des transhumants nous xam nous dañ milieu politique Nous ñooñu la waaw satisfaire pour préparer peut-être ay local parce que si nous ñu mu pour gouvernance nous politique euh, opposition bi nous jàpp nañ nous dañoo am aura dañoo ah, voilà poste mais pas ay poste ministériels, pour nga xamante ni lii dañu nar a liggéey Sénégal yaa nag yaa yaa yi nag des excepté am na ñoo xamante ni carrément ci biir ministère euh, ci biir ministère yi ñu dal ñii carément am nañ fa seen place mais ñu si ëpp la majeure partie ay poste politique la pour waajal peut-être ay seen élection législative ñu dem 2022 je sais pas 2021. yooyu kese la mu mel ne ci remaniement boobu noonu kii di bun Abdallah Dionne moom ñenn ci sénégalais ñi ngi wax ne poste booba ko Macky Sall retiré ci moom yàgg na parce que kenn xamatul woon bun Abdallah John moom lan la doon kiyel moom aussi tamit dem na noppalu mais le cas de Mimi Touré moom moo jaaxal ñëpp ak ki nga xamante ne moom moo di Aly Ngouille Ndiaye di nekkoon ministre de l' intérieur man nak <laughs> sénégalais li ñuy posé wu ne Aly Ngouille Ndiaye moo ñu takkloo woon masque yi kon moom kan la ñuy boole pour ñu tekki masque yi tamit loolu jara posé wu laa question waaw xam nga ni boo xoolee analyse politique yu mag mais par ñun ñun dañuy joxe suñu xalaat rek boo xoolee c'était prévisible ku ci mel ni ne minatu Touré ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne et cetera ñu ci mel ni ñooñu ay ñoom Amadou Ba ñu ci mel ne ñooñu amoon njortoon nañu gouvernement bii di ñëw xëy na duñu ci bokk. parce que boo xoolee au sein de l'APR ñoom seen biir dañoo am ay këralement dañoo jàpp ni Amadou Ba dafa am kaawam Mimi Touré am gàngooram

possibilité pour am ay fonds pour dem def ay tournée nangam sangam mais ces gens peut-être Macky Sall loolu la parce que yàgg na leen ko yàgg na leen ko djewé ku ci melni Amadou Ba dafa bëgg présenter en 2024 ku ci melni Mimi Touré parce que y a des informations qui disent ça avant remaniement ministériel bi Mimi Touré mom amoon na yéene def tournée nationale mais il a euh, il paraît que c'est le président Macky Sall moko né nee bul dem togal mais kon mom na japp na ñi fu mu fu mu toog la ñu bëgg a toog peut-être moo tax mu tekki seen doomu tànk mën na leen accan nañu ñaanalante loolu lañ jàpp rek. Ah, ñu mel ne gouvernement jeune la le cas euh, nu mu tudd euh, Antoine Félix Babacar Diome euh, bi nga xamante ne moom moo jël poste Aly Ngouille Ndiaye kon donc naka nga gisee loolu moom bëla la ci affaire yi quoi. bëla la du bëla parce que moom yàgg na lenn laa xamul ndax bokk na ci APR mais de tout façon moom yàgg na di servir Macky Sall. te moom déjà moom xam nga ab réew lépp waaw lépp na suuxe waay bu justice suuxe mais boo jëlee ministre bu yor wàllum justice ak ministre de l'intérieur ñoom ñëpp nga xam ne ñooñ ñoo war a considérer lu ñuy wax la démocratie parce que tey jii ni man bokkoon naa ak ju ak justice Sénégal lu mu amee problème baara yëgoo bi kumba am ndey kumba amul ndey boo bokkee ci Macky sàll wan naada defal lu la neex anyway dara du la si fekk boo bokkee si opposition bi moom wala nga nekk un un activiste chevronné comme ku si mel ne Abdou Karim Gueye xurum xaq wala Pape Abdoulaye Touré wala ku si mel ne Guy Marius da nga na benn erreur boo ko defee da nga nar a lu si mel ne barki Dembo Ndiaye lu député euh, majorité présidentielle waxoon xawma Aliou Dumbooru saw loolu man Malcom ma ko waxoon wala benn Guy Marius Sagna wala benn Pape Abdoulaye Touré wala benn Abdou Karim xurum xàq duñ ko fi fekk parce que justice moo mel noonu parce que man nag yaakaaroon naa si remaniement bii Macky Sall tuddee remaniement ku si mel ne magistrature bi ni mu amee problème jàppoon nañ monsieur Sall mi fi nekk sax wax dëgg fa yàlla ñun sénégalais yi gis ñu suñu bopp si justice yaakaar na nañ ñu ko dindi tegal ñu ko fële indi ñu kenn ko am te ne ku justifiable la. waaw daf ko changé yóbbu ko feneen pour pour tuxal problème mais ñun fii Sénégal lañ nekk de problème boobu duñ ko fàtte ala kulli al affaire of nag boobu affaire of nag boobu noonu ala kulli al dina ko layoog ñun parce que mënuñu Covid 19 mënuñu fi ñu génne lu su melni ay mil ay milliards yu ñu mënul xayma jox la ko. ba légui mëno justifier lool lool mom ala kulli al dina ko justifier. mu yobbu ko fenen transport xawma ma la ko yobbu wala mu ba ala kulli al dina ko mais bo ñew ci kaw Antoine. ko ça pose un problème moom tamit. parce que mën nañ né tey jii Sénégal affaire justice. lu ñu gën a ci justice Sénégal kaawu Khalifa Sall ak euh, Karim Wade ba taxna sax bo xolé juridiction bu melni ne dañ ci dan Sénégal parce que japp nañ ni mhm. ab lu nu ñuy atté Karim Wade jaadul nu ñu atté ka 5 euh, ans mu waron na fi mais waaw effectivement nu ñu atté Khalifa Sall jaadu te loolu bo xolé kam mo nekkoon ci ginnaw mhm. gérer mission bob Antoine mii kon nak ah, Sénégal suñu démocratie war nañ ci tata kon kon kan nag moom moo doon def buloo yoy non waxtuma la nag bu ñu ko joxee ministère dana ne instant boobu dooleem eggul woon fenn fi mais léegi Macky Sall mën na ne récompense jox na ko beneen encore gën nako yok dolé kon nak tey jii nii mun nañ jàpp ni carrément bon le problème toujours persiste dafa gën a empirer sax. waaw kon da nga japp ne Antoine euh, chien de garde bu Macky Sall la bon mën nako ko non mais en tout cas man doyuma parce que bo xolé c'est un sénégalais. Mhm. excepté ku beaucoup peut-être majorité présidentielle te nous, dañu wax seen akulaay tala ñoom ñoo nous a procès Khalifa Sall teguñu ko ci yoon. effectivement. c'était c'était juste pour tuer un adversaire politique. Mhm. procès Karim Wade xam nañ ni 25 personnes yooyu ñoo ñu doon top Antoine mi. Mi. moi mii. Mhm. moo moo moo leen naroon toppul moom rapport boobu noonu tey jii 25 personnes yooyu yëpp kenn lañ ci top muy Karim Wade. Mhm. te parmi ces 25 personnes né ne ñeu def enregistrement illicite Omar Sar biñu jox. rhumatisme su ma Umar Sarr jox xawma ay miin. Mhm. ci la bok ba léegi jugé guñ ko ba légui Omar Sarr mom jugé guñ ko. Mhm. guñ ko euh, dossier non classé. ba taxna na ba tey moom. da yoon daf ko top ba mais taxul ni Macky Sall jël nako def nako ministre. effectivement kon cest à que kumba ànd ak kumba bo ànd ak mom dafa lo ne boo ak mom mooy loolu loo def rek yat bi dal sa kaw te Antoine mii c'est autre chose parce que y a des xalifis saa yu ma gis. ci internet bi wala ñuy fustigé ñaan ànd ñu la fekk ñu fal ko ministre de l'intérieur et je suis d'avis avec eux. ok loolu moom moo nekkoon remaniement bi dégg ngeen Malcolm lim ci chroniqueur yaakaar naa am na solo ñu ñëw ci le cas de Idrissa Seck. Mhm. Idrissa Seck kii di Macky Sall daan na ko fal li nga xamante ne moom moo di président conseil économique social et environnemental naka nga gisee loolu parce que Idi. moo mhm. fi waxoon ne moom. Euh, manam du top ci manam dayom ci politique. Mm-hmm. dotul toppati kenn ko xamante mom moom moo koy jiite. ñeent yi rek la mëna nek té lolu loolu nu tudd askanu Sénégal mom moko koy fal muy président de la république. n'ek mm-hmm. tamit maire n'ek conseil municipal bu bu régional bu Thiès en même temps député. Mm-hmm. à l'Assemblée euh, nationale. kon donc naka nga gisé le cas de Idrissa Seck mu mel mom ñen ci sénégalais ñing koy tuddé na Idi mom moy le roi di wax waxeet ah en tout cas problème Idrissa Seck mom dafa nek lo xamante dafa jaaxal sénégalais yu bëri bëri bëri bëri parce que bo xolé dimanche bañu annoncer nomination ba légui ni à la une des journaux dans dans les débats télévisés indil Idi bayel Idi jàppal Idi bayel Idi yaa ngi comprendre parce que tey jii nii lu mu def c'est dafa graaw parce que tey jii nii Idrissa Seck dafa nek ñun dañu nek ay ndaw. ba ñu xamee commencé ràññee politique euh, yàggul waaye baax na comme que l'histoire est là l'histoire histoire dañu koy nettali wala ñu dem gëstu di histoire mais ñun carrément mun nañ ne Idrissa Seck ba mu dalee politique mun nañ ko jàpp ba léegi ba mu àndeek ak maître Abdoulaye Wade ba ñu ngi ne tey ñun Idrissa Seck lan lañ mën a conclure si moom c'est un gars c'est un politicien bu xamante ne peut être jaral nako waaw ngour jaral nako ko lu nekk dil parce que bo déggé tay protocole de rebus yi di ngay dégg bo déggé 74 milliards yu ko boole won ak Ablaye Wade ba légui ken xamul mom la wala du mais ba légui des na y a un point d'entre un grand point d'interrogation mm-hmm. tay jii ni nga ñew mën nañ tuddé mo wax Macky Sall mu def protocole du palais kon ba léegi moom mu ngi si politique te euh, te man sama jàngat xale bu ndaw la ah, mu sama sama jàngat bu ndaw parce que tey jii ni moom mënu ma concevoir Idy nu mu nu mu rabaissé wu nu mu wàcce ba tey jii ni sénégal yëpp d'accord ni yow après Abdoulaye Wade yow yaay toog chaise bi cinquième président xaw président boobu yow la ah, ah. nga dem élection ak maître Abdoulaye Wade en 2007 nga jël deuxième mm-hmm. mais ay njuuj njaaj affaire njuuj njaaj dugal la si encore PDS ba maître Abdoulaye Wade mën na la da la nax. Mhm, daf ko nax da la nax. Mhm. ba gëm loo leen yow yaay doon mbëru PDS. ba nga dugg nga perdre sa crédibilité parce que un opposant un opposant la war a doon. Mhm. parce que tey jii nii ab réew ñëpp mënuñu nekk dans la si majorité bi. effectivement boobaa ñëpp bu ñu nekkee si majorité bi askan bi kam moo koy xeexal. yow nga nekk un président nga dem en 2007 population bi ne la yow yaay deuxième. 2012 war a ñëw nga war a taaxirlu nga yàqamti bëgg def ay combine nga dem dugg ci piège maître Abdoulaye Wade nga ñëw élection 2012. 2e 3 deuxième jëloo 4 jëloo 5 cinquième position ay Mustapha Niass. ñuy ñu ensemble jamono yoñu bo xolé en 2010 ndaw ñi dañ né mag dootu leen jité parce que bo xoolee ab dañu la da mag la. Mhm. yow mag bobu noonu Abdoulaye da nekk sa kanam. mustapha mhm. Niass mo la mag nek sa kanam. Tanor Dieng mo la mag nek sa kanam. Mhm. kon ça pose un problème. kon déjà wan nañ la dil bi nga dil moo la yóbbee loolu. Mhm. loolu doyul ñu ñëw en 2012. Mhm. Macky Sall gagné. Mhm. yow en 2012 jusqu'à en 2000 ni nga wax tey en 2019. nga resté nga nekk maintenant un leader constant nga ne yow opposant nga. ngay wax lu leer te loo mënti wax waa waa Macky waa mag yi mouvement présidentiel bi du ñu mën a dindi dara si li nga wax. nga nekk la doon wax moom du dialogue sax ak Macky Sall dem di liggéey ak moom parce que fi la doon toog di ko ñaawal naan en tant que président war a teg ay stratégie lu dul naan farañ fañ fañ fañ te waa Caaca mel na mbëru làmb waaw <laughs> mel mu nekkoon vraiment nit koo xam te ne vraiment amoo am na xam-xam ba tey sax mais nekkoon na sénégalais bàyyi woon nañu ko xel ne carrément moo nekkoon l'homme de la situation parce que son expérience en politique ànd ak Abdoulaye nekk si gouvernement nekk ñu nekk waaw tu vois ñëw en 2019 jël Tout pourtant 2024 lu yàggul trois ans si des lan moo jaral combine parce que lii mën nañu ko tuddee combine dil la quoi dil la parce que tey jii nii il s'est dédié mhm. parce que en 2019 nous présenter un programme coalition Idy 2019 mhm. xam Idy président un programme ñoom ñu ne Macky Sall dafa def ay institution budgétivore mhm. pour caser des clientèles politiques lu sommes mel ne HCCT lu si mel 16 bii mu nekk une fois au une fois mu nek président da koy supprimer. effectivement parce que loolu dafa yàqal Sénégal parce que xaliss bu. boobu parce que lolu doon wax ne ay milliards yu bari dañ ciy dugg war na dugg ko jox ñi nga xamné ñoy ñooy étudiants yi. étudiants yeeg defal si école mais tay il se permet ñu fal ko loolu mu def dilem mhm. combinam mo Macky Sall ñu bari yëgu. Mhm. foo am tane ne sax ay nitam ay militants presque yëguñu. Mhm. yow tay tu te permet nga taxaw ci kanamu sénégalais yi. nga nan parce que le devoir nous appelle. parce qu'il y a une crise économique. dama le président de la république son appel non c'est contradictoire crise économique ces institutions ont sénégalais mais kon yow da ngaa gën a Sénégal. te bul fàtte ni 9 milliards 9 millions lañ koy fay chaque mois. par mois jox ko budget 6 milliards 8 oto yoo xamante ne benn bokku ci ak sa morom carburant bi aussi tamit gouvernement Sénégal moo koy fay. ay voyages, am te logement aussi tamit bokku ci. en tout cas de toute façon loo mënti mënti dégg. Mhm. Idi a trahi le peuple. Mhm. Il a trahi sa coalition. parce mhm. que nous tax a trahi sa coalition parce que moom def na baara yëgoo. baara Yego, tête à tête ak Macky Sall. Faut coalition bi yëgul lu coalition bi parce que bon, bon, nous ba mu nee dafa ànd ak Macky Sall. Mm-hmm. ku si mel docteur Babacar Diop. Mm-hmm. force démocrate, mm-hmm. force démocratique sénégalais. dafa génn. ku si mel ne Bouga Bouga Bouga dafa génn. lu tax ñu génn parce que nous yëgawuñu seen biir. te am na de ñoo xam de dañoo sur la porte di génn. kon tey jii dafa def baara yëgu wegul askan bi. mais ñoom na bu ñu jàppante ne tey jii politique ay dil la ak ay combine c'est leur problème mais askan bang fi ndaw yaangi fi jeunesse bang on est jeunesse bang fi di l'en, xol di surveiller. Mhm. avec des yeux fermes. Quand tu dis carrément il a trahi le peuple. Mhm. il a trahi le peuple alors nous mu que tamit ah, pour nos di di nos di di gérer quoi di gérer mais nekkul fa sénégalais yi quoi benn ok Malcom mu mel ne kii di Idrissa Seck ñenn ci sénégalais yi nee nañ jël la def ak son excellence euh, monsieur Macky Sall comme ni ko Ablaye Wade naxee woon en 2000 euh, nu mu tudd 12 woolu ko nekkoon na ñëw 2005 pour mu ñëw nekk euh, chef de l' opposition PDS ba ñi ngeen ci sénégalais yi daal di koy weddi mu ñëwaat ni 2012 daal di fekk si ki nga xamante ne 2020 fekk si ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall est ce que du Macky Sall dafa jël Idrissa pour def ko. samp ko ndënd pour euh, élection 2024 parce que ku xamna ne Macky Sall mom paré na ci pouvoir. Mhm. parce que tamit sénégalais duñ ko nangu. pour mu mën ko protéger ci njuuj njaaj nga xamante def nako mom ak ay djégué ñaaleem. xam nga tey jii man mal ko ba 2024 en tant que Macky Sall deful déclaration du nek président de la du nek candidat.

il a il a il a il a eu toujours raison. yaa ngi ko wax y a des douleurs de l'opposition, il y a des oppositions yoo xam te ne dañuy dem di gis Macky Sall di baare conférence de presse bu mu def même pas yu fu ma jumul deux mois wax na ko moom Sonko Barthélémy Dias amul fu ko fustigé et c'est normal c'était prévisible parce que ñun tey ba génné en 2012. asafra ba ñu ba ñu élection présidentielle en 2019 ba gaay dem gagalé quatre quatre candidats yi ak moom euh, dem galé Idrissa Seck signé lu ñuy signé ñu ne léegi garaaw Macky Sall def na lu muy def parce que de quoi qu'on puisse dire Sénégal ba mu donné Sénégal man luma xamé xàmmee ba si en 2019 lañ def élection ñu tok presque une semaine pour génnee ay élection Sénégal en 2019 la gis élection ñuy génne résultat ñu génnee ay char de combat kon loolu dafa am lu muy woné Macky Sall amone lu mu nar parce que de quoi qu'on puisse dire élection yi des na transparent parce que tay jii ne ñun Aly Ngouille Ndiaye daf ñu ton ñun les primes votants parce que ñun les primes votants ñun ñu soog voter presque plus de 1 million de jeunes jotuñu seen carte tu tu tu empêches des primo votants de voter et tu fais voter des mineurs te loolu gis nañ ko. effectivement Macky Sall jàpp ni dëkk bi day tàkk. gars yi taaluñu dëkk bi. Mm-hmm. bàyyi ko ni ko kon que 5 ans la demal rek. ba 2024 depuis le Idriss Seck ba mu wonee le peuple. ba mu la wonee ginnaaw. Mm-hmm. ba léegi Idriss Seck déggatuñ ko ba bis ko falee kon nag c'était prévisible sénégalais yi jàpp Idriss Seck day combine ñaata problème moo fi am si diggante bi problème courant bi problème problème étudiant yi. gars yi di manifester Babacar Diop mi nga xam ne moo bokk ci coalition Idy kii ñu jàpp ko yóbbu ko kaso ba gaañ ko fa Idrissa génnul ŋaangul deful communiqué kon kay cest à moom mu ngi doon yëg ak Macky c'est prévisible ok Malcom dafa mel ne li ñu cëraloon ci waxtu mi ngi jeex mais duñ ko tëjee ak ki nga xamante ne moom moo di Sonko nekk chef de l'opposition kon donc sa abi ci loolu ndax sénégalais yi instant bi seen yaakaar ko ci kenn ku dul ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ne comme que Idrissa war na leen yaakaar am nañ yaakaar ci ki nga xamante ne moom moo di Sonko loolu moom moo tax mu nekk chef de l'opposition rek mu bañ a tas yaakaar naka nga gisee loolu. waaw bon loolu moom c'est évident. parce que ñoom une affaire des de chef de l'opposition boobu dañu doon naan kon que dañoo nekk régime présidentiel ku jël deuxième moo war a chef de l'opposition puisque nag ku jël deuxième ci élection yi ñu gën avec 20 pour cent et nek na ci mouvement présidentiel kon kay mom out après le deuxième c'est le troisième même si que wa PASTEF bul faté ñom nee le statut du chef de l'opposition leur ne les intéresse guère parce que les ñom chef de l'opposition bu am peut-être élection législative yi dina la wala présidentielle fekkente ni affaire de présidentielle la def parce que ñom ils préfèrent am chef de l'opposition parlementaire la de toute façon mais instant situation bi nu mu demee ni géopolitique bi Idi out mu ngi ci biir euh, mouvement présidentiel bi. instant kay moom Sonko moo fi nekk moom. Sonko moo fi nekk. Mhm. te na gën a góorgóorlu. mooy bañ a tas yaakaaru ndaw ñi te jàpp naa ne carrément c'est un leader boo xam te il est mm-hmm. constant il est constant depuis ba mu commencé politique ba léegi moo ngi si ji parce que dialogue bii nii lii Idrissa Seck ñu koy def loolu nii moom def loolu lañ ko parce que barki Demba Ndiaye ñu ngi dégg ba si Diomaye Faye au lendemain des élections du mm-hmm. de 2019 mm-hmm. am na ay kàngam ay kilifa ay médiateurs yu ñuy yebal si waa

Euh, di faatu si géej gi di leen jaale seen parent ñëpp di euh, en tout cas di jaale Sénégal yëpp pour le professeur ba dee Thiam ak ndaw ñi ñuy nekk di ñàkk di ñax aussi tamit euh, gouvernement bi.

ci mbeun miñ doon def barça wala barsaq di len ñaanal rek fa ñu tëdd yàlla na len gënal fi nga xamantene fi lañ juggé ñi fi dess aussi tamit ñu dello seen xel ci yalla xam aussi tamit nit du dem di ci wërsegam fu way nek rek sa wërsëg bu waré ñew rek dina ñew ñu di len jox dig dajé ba benen mercredi rek ak seen émission taxaw du di remercier bu baaxa baax sama chroniqueur di Malcolm di jaajeufal bu baaxa baax sama caméraman du ñaaw ci bu gis-gis bi léré dégg-dégg bi neex du ci ñom ñun ñoy les hommes de l'ombre ñom la amama moko doon assurer ki nga xamante ne moom moo ci Mouhamed suñu monteur di ki nga xamante ne moom moo ci góoro ñu di ko wax bon rétablissement rek di leen jox di daje ba beneen ak taxaw seetlu loolu moom moo fi nekkoon sama gars yi